asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu lay nuyu waa tubaa ca kanam ñoo ñëwoon sess la ci turu commission sociale ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdou Fattah Mbacké moom Cheikh Amadou Fadal waaye ci njiital sous commission bi nga xam ne mooy sous commission bi saytu euh, malade yi ngir di xam seeni jafe-jafe. di ko delloo sul commission sociale bu tubaa ca kanam ngir ñi di ko waxtaanee xool yan saafara lañ ci jéem te yàlla ak sëriñ bi rek tax commission sous commission boobu ku ñuy wax sëñ Mbaye Cissé jiite ko tañ ànd ci ñu ànd ak soxna Ndey Diop ginnaaw bi ngeen ñëwee ci siège yu Touba ca kanam déposé woon fa seeni yitte ci wàllu ndimbal jëm ci seen waajur yi nga xam ne tubarkal la tawat bi dafa xaw a yàgg lool waaye ñu ànduñu ñu ñëpp di ñaan yàlla suñu borom defal ko tawféex ñu seet woon leen indi leen luñ barkeloo ci li nga xam ne moom mooy la fajoo ci wàllu wér-gu-yaram ak euh, lu mel na ceeb euh, ak diwlin ngir barkeloo ko ci kër gi ndax it ku tawat euh, da ngay da tala faju waaye tamit mën ngaa am ca wet ga jafe-jafe dund waa Touba ci kanam maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di leen sant nag cant goo xam ne am na tàmbali waaye amut fu mu yem di sant nag Ndey Jóob mii nga xam ne lépp mooma ndax keroog ba sama yaay daanoo fii moom moo ma fekk ne ma yóbbu ko ndax nit mënut dara waaye demal yóbbu ko ma ne ko man yoruma dara lu ma yóbbu hôpital mu ne ma demal yóbbu ko man dinaa woo waa Touba ca kanam wax leen tànk yooyu mu jégoon nag ba tey jii delloowu ko ginnaaw ma koy sant di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg ndax lii lépp moom la ma leen di sant di leen gërëm. yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana aqbal nasmana bi hurmatil hasani wal husayni ma hurmati kulli man ila sabin jamaam wa hurmatil banina wal xanaa di woo ñëpp rek di tàllal ñëpp suñu loxo ci commission sociale bi nga xam ne lii nga xam ne moom la ñuy dimbalee way néew ji doole yi ci wàllu dund wala ci wàllu faj yëpp it jógewut ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj murit yi waaye mi ngi jóge ci jaayante boo xam ne nit ñi dañ koy jaayante rek gannaaw bu ñu defee seen wareef ci Touba ci kanam ba noppi muy seen ñaar téeméer weer wu dee waaye lu ci waaye man weer wu jot lañuy joxe ñu cay yóbbu lay dem ca jumaa la cay des lañuy ñuy dimbalee mbokk yu mel nii ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te yittewoo ko ana lasi lastu amilu abada ila siwaka hahuna summa xada limla wa anta rabbi alwakilu wa anta asmiya fala amilu ya anta rabbi alwabu wa fi futuhatika la artabu Euh, sunu mbokk mi nga xam ne moom lañ seet si tey nag dañ fee ñëwoon altine bee weesu doon ko seet si fekk ci nattu bu ko suñu borom daal euh, dogaloon ci kawam muy gaañu gaañu bu mu amoon ci loxo bi ba am ci ay jafe-jafe bañ jot a wàññi loxo bi ginnaaw ba nag mu amoon ay jafe-jafe lool ci wàllu faj waaye ginnaaw bi yàlla boole na ko nag ay dëkkandoo yu baax ak i bokki taalibe yu baax yoo xam ne jàppale nañ ko ci lool ci biir jàppale koo gi nag dafa am mbir mu yéeme mu ci am moo xam ne dafa am wëllëreem waaye di dëkkandoo boo xam ne kooko nag jaayante woon lépp loo xam ne moom la ñu fa doon aajowoo wala lu ñu fay war a fay rek mu doon ko joxe doon leen wax bu ngeen noppee rek lu ngeen ca mën a euh, lijjanti rek ak heure bu ngeen ko mën a lijjanti. bi ñu demee ba tan am nag suñu borom dogaloon mu ñëwoon ci commission sociale doon fa sàkku ndimbal biñ ñëwee seet si ko waxtaan ak moom ba mu wax ñu yitteem muy wàllu dund beeg bor boobu tolloon ci ñaari euh, téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak lu teg biñ jokkoo eh, mbokku taalibe bi nga xam ne moo ko doon joxeel bor bi bañ waxee dana yéen du ngeen ma gën a bëgg lu baax du ngeen ma gën a gore waaye xamal nañu ne ci biir kàddoom tamit lépp sëriñ bee te ginnaaw sëriñ bee ko dénk mu am ba am lu mu dese lu mu mën a jàppalee mbokkum taalibeem xalaatut wala mu jàpp ci lenn loo xam ne lu muy topp la wala lu muy fayeeku la wala lu mu koy laaj ëllëg. jëf ju baax dafa tumranke ba nga xam ne soo gisee ku ko def euh, li gën mooy nga feeñal ko ngir nit mën ko caa roy ndax euh, roy lu baax daa am solo te kenn ku ci nekk sa dëkkandoo rek mooy sa mbokk te ñi ci ñi ci ci wet gi buñ doon bàyyi xel nañu tànn rek euh, lu bari du egg ci wenc bi ci ci ci ci ci ci ëtt bi lay saafarawoo kon sëñ bi sa taxawaay rafet na trop te ni ko defee moo gën a yéemeeti euh, ndax mbokk mi di sëriñ Seex bi ñuy jóge fii di dem hôpital àndatoon ak sagoom su jamono yooyu metti woon na ñu jëloon engagement pour yóbbu kon diggante jullit ak mbokkam moo ñu war deful ñu ko kenn dañ koo def ngir yàlla ndax lu waay jëf sa bopp eh, damay faral di wax ni kenn ku nekk ndaal li nga yor di ko root na nga bàyyi xel ne yaa koy naan na nga fexe ba ndox mi sell ndax eh, comme leera ne yaa koy naan bu ndox mi sellul itam bu naan nga jotee da nga sonn te mën na laa indi leneen gàllankoor eh, mooy àdduna kenn ku ci nekk looy def na nga ko def te yàlla tax tu nga rafetal ko laa ko jàppee te it sëñ Cheikh sama diggante ak moom ak diggante mag waa koñ bi yëpp ñëpp ko mën a seere nitu yàlla la kuy dox ci bokk la kuy defar lu yàqu la ku bëgg lu baax la bi nattu suñu borom ñëwee nag dal ci ko am ni ñu mën a taxawee mooy nii rek nii rek la ñu waroon a taxawee def ci li ñu mën kémta lay kattan te yàlla rek tax mu xal nag fees na feesaay boo xam ni yéeme na ndax keroog ngeen jëkkee ànd ak Maam Mor ñëw fi ah fekk na ko mu génn ah loolu ñu ci defit maanaam ba na ko ba mi fan sax moom ñu muy dooru ak ci nopp kon loolu ak yëg-yëg dëgg la waaw di leen ñaanalit yéen ñi nga xam ne yéen waaro yoro wàllu liggéey biit ñoo ngi ñaanit ci kattanu Sëñ Tuubaa mi tax ngeen koy def yal na leen saa borom gën a dox lee jox ndam bu baax ndax lii moom jullit bu ne da koo war maw ñaqam di sa dem da koo war ndax tey na ngeen amee woyof te ba dikki sax di saytu mbokkum jullit moo xam ne rek dafa am lont lont yi rek ku ci xamam fay ëllëg rek wallahi doo sa ta dàcc mukk doo ci dàcc mukk waaw ndax yéeme na yéeme na koo xam ne ah ki tëdd sa mënul dara sa daan xëy ci yëppam di dundalu njabootam nekk ci maanaam li nga xam ne moo neex yàlla neex yoonal neex Sëriñ Tuubaa ah gàllankoor bi di kii dañuy delloo lépp ci yàlla rek xam ne dama ko delloo lépp ci yàlla yàlla ngi may gën a wonaati mbiram sama diggam ak moom ak sëñ bi taxan ñu nekk ma dëkk si dëkk bi di ñaanit si partana suñ borom lépp njaboot gu ma mën a nu ma mën a def ba nu wëlbati ko di sosi lii rek dinaa ko def waaw ndax lii moom euh, war na jullit bu ne daal di sa dox comme na ma leen waxee woon rek sama yéene de ci lii ëpp na ni maanaam lépp ñu yëngu ci Touba yal na tege seeni loxo rek ndax gis nañ ni ngeen di doxee seenu doxin mu ngi mel ni yéen a ngi ne buntu kër ba keneen ku war a mën a dikki da naa ko fii laa yem ci liggéey ba kookaat mën a sowaat foofu kon loolu lii alhamdulilah rabbil alamin jalilahi maskanitu babat misrasmi abi jaayi xayri man